ngaani gudi gan guy gan ak may ngaan saala yaay bennub doom ngaani yëtt guy muy gaal yëtt samay joow maa koy laaj ay dem naa ba ne di yofe di laaj te ngaan sam jël naa ji ngor jee di laaj te ngaan sam na leen ngaani guy gan ak may ngaan Lader TV ñëw na seet Jaraaf Youssou Ndoye kan mooy Jaraaf Youssou Ndoye kii mooy président au conseil de la collectivité Lébu la dalee ngor géej néegi yoo wakam ndakaaru ba néegi jalaaw ba néegi jandeer mu ngi ci loxo ngoon nag jàmbaar jaañ gor saani iwiti ngeen ku ma te iwiti ravi de vous retrouver dans Micromadaire Tay nak ñu am mbégte ak contentement C'est ci ki nga xamné moy mooy euh, jaraaf Youssou Ndoye mu nekk le grand Jaraf bu Dakar Bala ñoo xous nak ci waxtaan bi dañ koy bayyi mu nuyo ak téléspectateurs yi TV. mbokk yi ma jàmm ngeen nu ngi leen nuyu si baatu asalaamaaleykum di ñaan Yalla yok jamm Sénégal am nañ ci soxla. di ñaanal bokki jullit yeeg chrétien yeeg ñépp kenn ku ci nekk toog bu jekka xam ne réew mi sunum réew la suñ ko yàqee sunu alal la ñu yàq lii wóor mooy buñ ko téye noonu lii fi mag ñi bàyyi woon moo fi continuer bon re asalaamaaleykum encore salaamaaleykum encore euh, euh, jaraaf nag ñu xuus ci waxtaan bi euh, tey ñu bëggoon xam lan lan mooy jaraaf exactement. waaw jaraaf xam nga mooy kii nga xamante ne maamam moo sanc dëkk bi jaraaf bu jiitoo gaa yi topp si muy organisation bu fi mag ñi bàyyi mu ngi am mill quatre cent trente deux mille quatre cent trente deux bi mag ñi taxawal jaraafaxi ndey ji réew ndey jàmbur farba euh, yooyu booba àll rek fi am bukki yeeg gaynde yeeg ñëpp a ngi fi yàlla def sutura ñu am xam-xam yenn yi téye ko di si doxal en 1432 nag la mag ñi toog waxtaan jël lépp defar ba nga xamante ne ñoom dinañ dund seen dund ku nekk dund sa dund mais après ñu am ndey gi réew am jaraaf am ndey gi réew am uh, kii ndey gi réew mu jël place su comme niñ ko mën a xalaate léegi nii ministre de l'intérieur day jàmbur parce que ku góor lay doon mais ndey lañ koy tudde mu nekk euh, euh, naka mu tuddati sax mu nekk action action sociale loolu moo tax loolu moo tax bu ñu yàlla defalee sutura ndey jàmbur yor action sociale farba yor affaire u leer yi ñu daan jàkkee ñu ministre de la culture si defar ak waxtaan euh, mu nekk nag loo xamante ne bari na si muy organigramme boobu ñu lébu yor séeréer si dañ yor yu deme noonu parce que nun ay bokk lañu joolaa yi dañu yor yu deme noonu si mag ñi même fi mu toll nii suñ lay fal jaraaf danañ la wax ne la am nga ñetti mbokk yoo xamante ne muy séeréer tukulóor joolaa bu ngeen seetee réew mi bu baax di ngeen xam ne ñoo yor Euh, ñoo niroo ay bagaas tey jii nag ñu war ci waxtaan fàttale xale yi rek wan leen ne seeni maam dafa am nu fi bàyyi woon te lool nu fi bàyyi bëgg nañu ah ngeen téye ko parce que jaraaf yi sundooy mu ngi fii mais bés day absenté te bu absenté ñu war a wax ci wax ji bu boobaa suñu defu lu mel nii ëllëg xale yi mën nañu réer mu ngi mel ni fan yële passé xale yi dañu réer ñu nangu ko muy dogalu borom bi waaye ñu bàyyi si xel ba yu si mel noonu ba ñu am parce que mag ñi dañu wax ne lu dul jàmm jàmm ak gën jàmm moo gën lépp lu dul moom parce que ak ah, loo mën a am boo amulee jàmm am loo dara d'accord nañ tey jii nag ngeen bokk ak man nu bokk toog seet lu ñuy bàyyil xale yi pour ëllëg pour jàmmi réew mi jaraaf bi mu demee noonu gars yi demee noonu ma jaarala si am tuuti nga xam ne stade de l'amitié bi gaa ñu jógee ci kaw dañu ñëw ba stade de l'amitié foofu la Dakar juddoo Yoof foofu la juddoo Ngor foofu la juddoo Wakaam gi foofu la juddoo ñu tuddee woon ko mboxeer pour xale yi ëllëg mboxeer mooy loolu jàpp eh, stade bi bu ngeen seetee bu ngeen fàttale ko ay dune la woon dune yooyu at yéene passé ñun sax biñ nekkee xale gis nañ ne mag ñi foofu dal nañ fa parce que xam nga ñoom amuñoon ay armoire ak yi suñuy dencat seeni bagage dañ koy denc si suuf si maanaam da nga wut repère sal ñett daw ñetti pas wala juróomi pas daal di defar sa jël ndaa ndaayu xonq yooyu dugal si say yenn yi dugal fa mais ñenn ñi dañ dul xamante repère bi su ko defee loolu moo waraloon at yële passé nele ñuy jékki-jékki di gis ay ndaak yu kenn xamul boor yooyu lii xew nag si si nii si nii si nii euh, wax naa la ne la mooy kii nga xamante ne moom mooy

mais jël taxi bi soppali ko daal di dem ne waaw jaraafa ma yónni yónni la loolu wàññi nga sama yónnant euh, tey ñu bëggoon xam kan mooy doon jaraaf ndax loo xam ne dañ koy tànn wala loo xam ne la ndono la moom laa wax léegi si biir la wax ne ne la par exemple Wakam sama maam moo ko créé en 1601 wax naa la ne la dakaar mu ngi juddoo fii wax la Ngor fi ma juddoo wax la lépp mu bokk benn place dinaa la si ñambaasal lenn muy këne foofu noonu soo gisee ñu tudd sax lébu lébu du lébu lebu la lebu lebu kaay ba na leer parce que am na yoo xamante ne suñ ko defee seen kii ñaari ngeen koy couper mais couper ko du njariñ

bu parce que boo ko waxee nii da ngay def ne Sénégal gii rek la woon Sénégal bariwunu woon ba ay soixante quinze nangam ñu ngi woon ay ay deux millions léegi yaa ngi dix-sept million wala déet Mali ñoom ñëpp lii nekk sunu boor yëpp dañ daan ñëw di se wala di lebse xam nga lebse lan yoos par exemple benn bagage boobu rek la lay indi bagage boobu mënoo ko jëli si dëkk bu amul géej ku nekk xam na ne yoos dañ koy dañ koy dañ koy jël weer ko comme ni ñuy weere aw géej comme ni ñuy weere euh, naka mu sax sax waaye ñebe asafla ceeb euh, beneen bi yebe boobu ñuy weer keccax buñ ko weeree muy rebe bu sew boobu

par exemple man maguma suma famille déedéet ñii ma don euh, fal bi may fal amna ay borom 80 ans amone way 80 kon day melni de comme élection comme élection présidentielle niñ koy défé non non non dañuy au famille bi au kilifa yi bu ñu toogee ñu waxtaan man man na wax ne man la man par exemple man euh, moo tax dinay dégg ne xam ngeen ko waxee en français dafa moofal boppam déedéet loolu dama koy layak ko ko wax parce que ñoo mag ñoo man maa ngoon si réunion ba mais wax gis fal ñoom complot nañ ma nuñ ma parce que gisoon nañ sama démarche fii si dëkk bi ak nii mu demee ak nii may façon bi may régler euh, affaire nit ñi ñoom ñu ne Youssou Ndoye la ñuy jël te su may dem bàyyi dañ gis nga affaire bi bon mais bi ma ñëwee si réunion bi toog ver six heures sept heures si lañ wax ne ma non danañ jël ñañ jël ñeenti nit rek ñu fal kenn bon mais après man man su ma suma kàddu boo ma jëlee kàddu maa ngi jàppoon ne sax dañuy fal mag ñi ma leen nañu fal kenn si yéen mag ñi ñun ñu téye si parce que boobu wóor na ma ne li ma xam ci Wakaam amul keneen ku si ku koy bu ma ko waxee kenn du ko dindi parce que à l'âge très bas si lay dem si mag ñi ak ñëw ba wakaam gi bariwul ñu xam sama âge ba tey di dañ koy werante ah parce que da gis ku jékki-jékki ñëw ne na nga maa na nanga mais yow jaraaf à peu près ñaati at nga am xam nga lu si gën a garaaw maa ko soppi def ko faux bulletin dama fekk gars yi <laughs> inscrire ma ne non parce que sunu mbokki tukulóor yi lii ñuy di yàgg si service yi Euh, non damay changé c'est la changé avec le ci tàng-tàng bi def ko 1966 xam nga parce que avant la juddu mais avant avant avant barrage après barrage ben là. la nous ñu bëggoon xam lan mo waral ñuy gis jaraf yu bari fi nga xamné moy ci lébu gi voilà parce que xam nga man biñ ma man biñ ma tànnee lëbu ah, ah, ndóoyeen gépp dañ si ànd te ndóoy sax mooy boo ko xoolee fa la lëbu départ parce que lu ñuy wax ndóoy lëbu ak kasaa loolu ñuy wax noonu lu am la nit nag mën na takki jabar Casamance mën nga takki jabar euh, euh, fu la neex mais <clears throat> ndooyeen boo fa amee jëkkër soo amee doom dooy la sant mais do jigéenu ndooyeen tam bu génnee sëy gi bay ba mu seem dem sax si waa faalee ni mais su boobaa lébu lay doon ndooy euh, ndooy la sant mais ay doomam bu boobaa ay lan lañ seen papa la ñuy toppi mais nag si lébu am na sax ay garaaf yoo xamante ne ñu ngi leen tànne si yaay parce que wakaam si baay lay tànne euh, yoof si ndey lay tànne ndax nga wax bi ngoor gii ma tiim si si baay lay tànne mais lii xew mooy am na loo xamante ne histoire la jaar na si Wakaam mu mel ni ngayeen dañuy falu ñoom ñoom ñoom dañuy falu te toll na temps waa ngayeen waxuma ngayeen mais euh, waxuma dara mais ngayeen si Wakaam ku nekk di nga fëgg sa dënn mais dënn bi duñ koy fëgg nañ ko keppaale tuuti déedéet loolu moom duma ko permettre benn nit xamul tax seen maam ak sunu maam noonu sunu maam Koddu Ndooy moo sëy ak seen maam ñoom Pisanta Gay muy Njooñig Gay dëkk si dëkk bu ñuy wax njooñik sa fatik man li may wax lu ma leer la te bokk naa si peut-être si sunu jamono ci biir cent yi bari na si ñu ko doon kii mais man si sama boppa man la yàlla def ma nekk jaraaf ju yee mook yéen seen caméra yeeg yi moo tax ma bari tiitar parce que euh, xam nga mag ñi da doon garaaw soo teg tey bu nit daan gaañu sax te mu nekk nawet dañuy jël borom ndënd mi mu dem ba kaw montagne rouge su demee ba kaw montagne rouge tëgga façon ba ñuy oowee nit ñi si tool yi ne waaj euh, am na euh, am na ko gaañu am teet mais man fekkee ma loolu waaye nag ngëyeen euh, suñuy doomi bàjjen lañu boo xool mais si jamono bii mën nañ ko tuddee noonu mais ñoom seen doomi ndigaay lañ ñun soon seen doomi ndigaay lañ maanaam li ma la bëgg a foofu ngëyeen mooy jarbaatu ndóoyeen Wakaam doy na fi giit créé tak euh, mbul mag ñi ne nañ ne mbul ak taklu def na 17 jours te ñaari frais de ko indi lii indi problème Wakaam lii indi Wakaam euh, taxaw yoof lañu joge jóge son maam Alioune Ndoye ak rakam dañuy jiit la ci ay fan ñii ne woon 7 jours ñii ne 17 jours 17 jours parce que Alioune bi frère am ñëwee euh, waxtaan ak moom gane si ko parce que seen papa de woon mu indi problème a Yoff moo tax Yoff muy yaay Wakaam Yoff muy yaay Dakar Yoff muy yaay Ngor dafa am nu nga xamante ne toujours moom lay bañ kuy change histoire damane ne fi ma toog nii euh, euh, wóor na ma ne mag ñi lii lañ fi bayyi parce que dama dugg si mag ñi gis nga moma bi ngay gis wa wakami di wëree ka dem ut soxor ci geej dem uti keer dem tol dem fërërëri booba man ma ngi dox yonenté mag daf dul lepp lañ dul wax fi rek waye nak fi ma kuma gëna xam wakam nekul fi gis ne tey euh, lan moy par exemple rôle jaraf yi nga xam moy dakar rawati na ci lebu gi non parce que xam nga jaraf aussi fay am ñukoy dar ñakoy dar moy ñi nga xamantene ay euh, mam lañu fàtte la wax farba moy teug bi nga xamantene moy coordonner coordonné ak kër euh, mbaar mbaari tëgg yi pour ñu xam mag ñi xam ndey par exemple ndey jërë jàmbur dana xam ren ji ñaati ëllëg ñaati xale ñoo fi toll ci mbay pour que ñu defar mais dañuy moom dina danañ fexe ba mbaar yi matale ëllëg yi su ko defee mu distribuer ko ñu bay suñu paree remplir grenier yi loolu yëpp mu ngi ci biir dama koy dañ koy ëmb si solidarité mais jaraaf ji lii nga xamante ne mooy war su amee par exemple gan bu ñëwoon ci dëkk bu njëkk dañoo naan ndey day ñëw laaj ca kër ndey jàmbur ndey jàmbur maanaam jàmbur bi jógee par exemple peneen bu ñëwee am na droit ne kër kër ndey jàmbur yaay laaj bu demee si ndey jàmbur war na ko mën a wax ne ko dama fi ñëwoon guddee

su fekkee dafa ne dafay dem géej bokk sa ñay liggéey sa géej ga ñu seet ñu ko jàppale sa géej ga ba mën faa toog parce que Bera loolu muy organiser dëkk bi ba coow du am mais lii am mooy que ne ñoom euh, euh, saltige mooy seere lépp lu jëm ci ak sëriñ ak ku war dëkk bi li ñuy seet nuñ koy réglé fuñ koy teg moo tax saltige dafa am importance aussi léegi mais saltige euh, tëm bari na loo xamante ne ku ñëw mu faj mu ngi mel ni waa wakam Wakaam nag imam bi di imam di waa Njaañeen euh, mag ñi wax nañ ne seen maam xam-xam bu mu yoroon su fekkente ne nit dafa dofe fële ay bokkam buñ ko indi nañu indiwaale yéreem xam nga tax parce que dof bi bu laa génn wakam day wér soo ñëwee dañ koy yeew sax parce que nañ daan dof di dóore ñu téye la bañ nga ñëw wakam boo ñëwee ñu faj la dégg nga fi ma jëm ah, am na ndëg lu bari loo xamante ne bii jamono doxee lañ koy dégg ma di ko waxaat tey wax naa ko ba tey mi dañ koy dindi ku ko dindi tamit yaa xam mais man d'accord monsieur daa nañ wax ne wakaam non ay dëmma lañ car rapide wakaam sax wala nga ne oh wakaam wakaam nga ne oh xamuñu dara si li wax wakaam dafa bari gàllaaj Wakaam du dëkk yi ngay gis nii mag ñii nekkoon ci dëkk bi doonoon ay mag doon ay sëriñ ak ñii nekkoon ci réew mi ñoom ñëpp d'accord ne Wakaam dafa ñuul kukk buñ kuñ mas a tëkku sax ci àll bi fii nga ñëw toog te ba léegi mu ngi dox toog ñu rek di ko seetaan buñ la tëkkoo ci àll bi man dimbali si Sénégalais yi parce que dañuy bari di liggéeyante xat dof-dof lu si kaw nit ñi suñu daan liggéey nit si àll bi day ñëw dëkk Wakaam euh, bu fekkee danga am problème yooyu réglé te sottiwul suñu mbokki tukulóor yi ñoo si muusoon parce que tukulóor bu ñu daan ñëw Dakar daanañ def bu ñu toogee Dakar ñaari weer ñetti weer laaluñu xaalis dañuy ñëw wakaam boobu temps euh, ay euh, parce que ñun bi ñu juddoo màgga tuuti fekk nañ fi ay euh, pantre pantre barak sept cent francs dañ ko daan luwee su ko duutu jamono bi su ko defee da bu ñu nekkee fii loolu moo waral tukkuréer yi bari wakaam kon wakaam suñ déggee li nga wax kon dëkk boo xam ne dëkk protection la dëkk protection la dañ ko ñàkk beneen affaire bi mooy Wakam mu ngi nekk ci saw jant lii ma lay wax bari na sëriñ ko nanda saw janta fii la kër gi sedde palaasu ñaanukaay la ma di la wax ne man dey comme yow nga toog sab néeg daal di weddi ku mu neex nga def say façon wax say wax wax a wax a wax parce que Sénégal yi dafa màggi pexey man a meew noo fi no dëgg la euh, Sëriñ at mu jot daana yónni suñu kër sama magu papa Sëriñ Tuubaa ko yar mu ngi tudd Baye Ablaye Ndooy mooy papu Sëriñ Jibi Ndooy beneen affaire bi Omar Foutiyou Tall ku ne xam na ne ku bëggoon ruxa bi la si histoire lu ñuy wax parce que Sénégal euh, comme ni ma la mën a waxe dañuy xaw a doy waar dañuy nëbb sëkk jëf merci jërëjëf sëkk jëf baaxul pii si dëkk bii bu fekkente ne dafa am kuy weddi na ñëw ñu toog ma toog mu toog ma waat ñu fekke waat bi mooy Omar Fuutu Taal man Jaraaf Youssou Ndoye maa wax ne gis naa ko fii gis naa ko mbaaw ñama ko gisandool mbaaw kenn naa sa manqué muy jaay ji yàlla na ko yàlla yërëm Moustapha Kane mu nga fa bëgguma sec moo nekk si statu mbaaw moo géré foofu soo ko gisee nii euh, ku baax la ku nga xamante ni daal footballeur la woon football na ñaay dugg na si ne mais lii ma mën a wax am fii euh, kii xam ñi xam ñaara xamoon ñetta xamul bon tey jii tey bu ñu amee cité euh, Omar Foutiyou Tall fii dafay dëggal suñuy wax te am na ay place ay place yoo xamante ne def na fa affaire bon fii mag ni lu ne yàlla dimbali na leen sutura leen fii Euh, comme ni nga ko waxee mu nekk dëkk boo xam ne dëkk protection la xam naa ne dinañ fi am kër ñun ñuy faama balaa ñoo ñibbi euh, ñu ñëw tuuti euh, parce que dañuy faral di dégg coowal suuf fi nga xam ne mooy ci ci wakaam wala récemment sax ñoo ngi ko dégg mooy ngor ba benn xale ñàkk seen bakkan yow en tant que jaraaf ban médiation nga si doon def médiation bi ma si doon def parce xam naa ne coowal suuf dafa bari waaye nag suuf moo tollu foofu parce que mbir bu avancé même xey nga doon gis ay Lat Joor di débraquer débraqué di door fale nit wala mu parkaat kële ñaf kële am na lu tax suuf la parce que dafa amoon suuf soo xamantene ne daf ne fii noo ko moom ndakaaru nag ñëpp daje fi bal ma xaa séeréer bi mais da ngay dégg ku naan non lébu yi dañ bëgg a suuf pël dafa bëggu nag pël nag mën a tax mu ñàkk bakkanam mais man lii c'est normal mais Sénégal société ruxa bii nii muy ruxa bi nga xamante ne mën nañ wax ne suukaram euh, suufam euh, bar barkeel na boo demee fii boo jegee croisement ja jam ñaajo man nga jënd suuf mais fii pour nga jënd fi suuf léegi day garaaw euh, nun sunu si xeex boobu terrain boobu ñu doon xeex waruñu si xeex. waruñu si xeex. waaw waxuma ne lébu yoruñu si xeex de parce que sa alal ku la si fekk di la bëgg di la wan ne sañ naa see xam yow itam sañ see dee man noonu laa ma samaan bu ma waxee ne leen sax di wax ne bëgg ne di nga wax ne garaaf gi daal li mu wax tey daal xaw ma dafa dafa tux si saa xaw ma duma def. mais ñoom genre <clears throat> gendarmerie police ko si nekk ay doomu Sénégal fa ne <clears throat> d'accord <clears throat> mag ñi ne jàmm moo gën loolu dañ si war a bàyyi xel lu nit yor yor pouvoir war nga bàyyi si loolu xel tey jii moo dégg ñu ne ñu ngay xeex ñu ngay jàppante ñu ngay waaj a jàppante <clears throat> départ au Cap-Vert xam nga loolu moom waroon man maay président au conseil de la presqu'île du Cap-Vert ma au Cap-Vert Tëngéej ñooñu ñëpp mbaaw nangam nangam ñu daje fii oo ma Ablaye Makhtar mais oo naa Papa Diagne te moo ma découragé <clears throat> xam nga doomu découragé loo ma grand sëriñ boobu dafa wax ne jaraaf histoire histoire ngor buñ si euh, non euh, fële Kayar la dëkke jëkke Kayar mbooloo suñu bokk lañ son maam moo créé Kayar bu ngeen seetee vidéo bi ba may tontu gars yi foofu wax na ne waa jooju doon dof dof lu di wax ay waxu bàbba itu wax naa ko ne ka nu ngi suñu ëttu maam ñaanuñu yalwaanuñu ci ngay dëkk <clears throat> ñu arrangé problème boobu war dem ndar Kayar Mboro ndar moo si topp bi ñu waree dem ndar dégg naa lu ne lu ne la la wax gis na ça, un gouverneur pour bu ootee ñu ngi qui, qui euh, <clears throat> bon parce que euh, euh, Ndar parce que Ndar notable comme wakam waxul deug xam nga mu ngi te vidéo dinañ xam kuy defar ak kuy yàq man yàqu ma juddoo ma sax fu ñu yàq Sénégal waaye nag kuy bandi ci Sénégal maa la gën a bandi mais nit bul set sañ-sañam ba loo jot yëkkati ka teg ko ko euh, président de la république bi fi ne ku baax la wax fa dëgg mbaax laa ko xame parce que man bu ma gisee façon bi muy doxalee da ngay xam ne kii homme d'état la mais ñoom ñii tapp ci ginnaawam nañu bàyyi di eenantu ay nit di koñe parce que réew koo sañat dëbba mu dëbba la boo ne yow yaay directeur u Senelec meew mi nangam nangam Youssou Ndoye nangam nangam mais mu mënoo mu sa mu cet ba du dem si boutique yi parce que looloo tax mu war a am mais du mënoo tere jaraaf naan si dëgg wala de bii ñu waxtaanee ak gouverneur yeeg ku ne ne leen di wax mooy non bu fa demee dañuy histoire histoire bi day kii ñun dañuy noonu ñun an may njool bu ndaw xaar ma may jàgga woy ma yàgg na ñool mo ndaw kay dogale ma yobbu fo aw ah mais ngon ñun war nañ mëna doxé dox ci normal lepp yépp yépp ya leen jaboté ndax tay ya nek giraf bu Dakar d'accord na parce que lolu bo doon lebu yi rek du ko falu parce que lebu bari nañu iñan li may wax lu leer la te ngi dox fi ci kaber deug na sax ay ay ay yone ne xamul tax mu wax loolu loolu sunu wóllëree maam yi ginne yi ñoo ma tol fii si kanamu table ji photo yii nekk fa woon mais fii la ma seen yónnante fekk ma ma euh, lu xew ñu ma yow say wóllëree maam ñoo la fal léegi jaraafi Cap-Vert ma ne lu koy firndeel ñu génneel ma euh, euh, këyit ne ma tàllal ko ma tàllal ko lem ko ma lem ko teg ko ñu génneel ma la sa ne maa ko xam dama wax ne euh, am na sax lu nga xamante ne du ma ko utiliser muy carte autoroute à péage mais instant bi ma waxee loolu ñuy dem ndar sa yoonu ndar laa oñño ko parce que dama gedda non man xam naa ne ndar organisation la am géej wakaam gi ay ndandara fi nekkoon nga ñëw yoof noonu nga dem yeneen dëkk yi noonu mais euh, xanaa ndar am na euh, kuy diriger tefes gi am na président des pêcheurs maa ko gis ba ma fa demee toog Mansour fay toog euh, naka mu tudd sax Mohamed Baraya toog ñuy def benn waxtaan président tefes gi jël na jël na parole wax ngoon Sénégal ana fu koy mën a ñëw fekk jaraaf si day nga ne ko ndaar nii ndaar ndaara fi ëpp organisation loolu ku la ko wax sax yow ab dof nga ko war a teg parce que ndar ku nekk d'accord na ne ñoo fi gën a bari tiitar ñoo fi dàqoon jàng ñoo fi gënoon set léegi la ndar yàqu mais avant ndar panaan la bés bu jot d'accord nga wala d'accord la <clears throat> tey <clears throat> ma oño ko ñu bise bi ma oño ko ñu ne ma noo am na ko dee kii dee woon si euh, mbooro kat feeñ na si la ñu retourné ñun au conseil bi ànd ak CNL bi ñëw Papa Diagne mu ngi di dund lii mu wax non jaraaf ku laa ku laa dem bi atte histoire da ngay xam lu ñu jote ma ne ko déedéet ñun dañuy ay juge senegal am tribunal ñu am gouvernement am tout coutume bi taxaw fi lu boy ke ñi reenté ñun nañ waxtaan ba ñu ànd mu ne non man duma dem ma ko ngo ndeuk baxna suba nu dem bi ma euh, TFM fekk sé ma wax leen li né suba lay dem agay ñu dem arranger programme mais ko li bari parce que foogoon nañ ne ñun suñu demee dañuy def lii dañuy def le nu fay ko parce que euh, li ma lay wax ni jàngkati alxuraan yi xam nañ ko jàng ñii si coutume bi xam nañ ko sooy jubaale ay nit dafa am too koy teg ay galgal yoo ko teg jëkkëraa jabar sax dañ leen di defere ndax dégg nga fi ma jëm te loolu ñu dugg si loolu dugg si foofu kalme foofu bon mais awma jàmm si yoon bi ba ñibbise mais bi may toll si yoon bi nag bi ma génnee mbooro si affaire seet xale bi gaañu ne dafa gaañu ma di leen dolli massaw di leen gërëm waa Mboro di gërëm waa euh, Kayar Kayar fa lañ jëkke su ma la waxee ne waxuñu sax lu yàgga ñu ne amul problème Mboro bañu commencé di wax ñom yëguñu woon ne sax ñu ngi ñew mais dañu ñew ñom ñoo génne seen photo ak seen chaise ñun ñëpp ñu tok waxtaan waxtaan wi dal mais deux trois orateurs ñom dar seen responsable bobu daal di wax ne jaraaf nun dey tey jii am nañ lu rëy parce que wax ju neex fi lañ ko fekk waa ci correct moo gën bu correctul mu ne ñun boo ba léegi ñu ngi ñaan yàlla gis la mais tey gii bésu tey bii d'accord neexul mais nag am na côté boo xamante ne bu ñu koy seetee am nañu kontaan te jaraaf yaax ñi nga àndal yal na leen yàlla jàppale mais dem leen mbooro bu ñoo bu kaayaar ñëwaatoon di di ñu dóor dañ leen di seetaan xam nga loolu si kuy dox jàmm neex na ñu ne ok ñu ñëw kaaw ngor bi nga laaj mais tag mais nag xam nga man tam wax fa dëgg ne yàlla sama jikko dafa nekk jikko joo xamante ne en général du may baalaate may waxante dëgg rek bu nu waxee dëgg rek yàlla tax ba ma génnee mbooro oto bi daw tuuti si laa o Papa Diagne jotuma ko ma jotaat ka beneen oote jaraaf maa ngi woon si benn dëj kër ko ma nekka ko d'accord mais dinaa def noonu waaw waaw boo ma tàngalee sama xol ma tàngal sa xol <coughs> sotti ko si yóob saaga si yóob saaga boobu dalee ma xamal ka ne que état du Sénégal ñun ñu leen di jàppale yéen nag da ngeen di ko gis si état defe na ku dem si état rek ay xaalis ak ay ñàkk fayda man xaw ma loolu dégg nga être état bi nu leen neex nañ ma teg parce que dañ ma jàppe jamono bi may jiite wakaam ñuy xeex ak gendarmerie fii ah oui bu laajaatoon bisimilaay ma def ko mais laajaatu ko man béet léegi fi mu nekk nii ñu dem ngor bi ñu tegee fii ñu ne non nañ jubal Ngor bi ñu demee ñu ngi fekk gendarme yi si boor bi à droite si place ba ñu romba dem fekk oo nañ waa Ngor ne leen nu ngi ñëw bi ñëwee ñun ñu ne leen coow lii lañ bëgg mu jeex parce que waruñoo xeex xeex pour lan déranger nit ñi ay gaañante am ko nekk ay kii na jeex na arrêté sinon pause Nous nous pose, sommes d'accord nañ si yow maire loo jotee kële ñii ni, ne dama laaj ma laaj 500 500 mètres carrés si 6 000 mètres carrés comme 6 huit mètres carrés la mais laaj avons euh, euh, euh, cent soixante mètres carrés cent soixante dix mètres carrés ngay laaj cinq cent mètres carrés ma ne waaw mais léegi dañ ngeen ñuy bàyyi ñu ñu dem waxtaan ak gendarme yi gendarme yi noonu éviter ndekete ñoom départ nañ bu yàgg ba tasaaroo xam naa lan la mooy que ne bu ñu ñëw parce que instant bii ñu ñëw di wax ak ñoom ñoom dañu dem réunion am élément comme quoi que ni foofu noonu titre la titre la boo xamante ne ñoom léegi tiitre bi ci jamonoy Ablaye Wade la ko yi toje woon def si turu Cheikh Tidiane Ly maa la wax ji wax man Cheikh Tidiane Ly ñu dem bi bugga a nax Cheikh Tidiane Sy maxtoom Cheikh Tidiane si ku baax la ku baree bagage mu ne leen mas suma demande foofu dara awma fa dara foofu comme waa Ngor ko moom bàyyi leen ko waa Ngor loolu wax jooju ku nekk moom lay séntu yu Cheikh na Ahmed Tidiane bu mu ko defee ñu jël titre ba tegaat ko noonu bàyyi sa liggéey bàyyi si lépp bii ñu ñëwee ñoom bi wax si la coow li am dama ne information bu nu mu mën a amee si ñoom si domaine si la wara bok ñoko génné légui gendarme ne comme négocier nañu ak ñom voilà 500 mètres carrés lañ doon wax mais légui on prend tout fuñ koy jëlé ku leen koy bay xana goor amatul fi ñom ñu ay goor gaay ay ay goor nañ tampo man dem bima dem gisuma li xam ma ñëw ba télé ak gendarme ba ma fekk ne que bu gars yi ñëwee kat wax leen ne ñun soxla nañ leen xanaa dinañ war a jël coutume moo fi jiit administration bii administration bii gan la fii bu fekkoonte ne dañu ñun dañu dañu jiit fii coutume ñu ne mooy administration administration bi du am mais dafa am ci kaw nangama nangam tubaab bi ñoo fi géré woon dañ daan waxtaan nit ñi

tëgg yaag géwél yaag say doom bàjjan ak say dëkkandoo loo yaay ji dafa liggéey yaay ji nii kërëb kërëb kërëb kërëb buñ la daxee nga laay sa dox dem lu tax man yoo xam ne si yaay ko liggéey mais nga defe ne yow yaa moom nit ñi nag parce que am nga benn ndombu tànk bu tànk dinaa la wax tey lu leer nga dégg ko président Macky Sall yi ak ñun kenn ku nekk institution wer mais suñu institution soo gisee manul ba romba président Macky Sall parce que président Macky Sall moo yor réew mi ngoon foog ñun dañ koy jàppale si biir coutume yow mii falu jaraaf dañ lay wax ne bul contre bour dinaa gis sax ay ay ku mel ni booy Malika la xaw ma lan ñuy wax ay jaraaf di ma wax lu ñaaw mais kenn ko si nekk sa yaay lay jël yéen ko ba biir weex ak sa papa xotti sa tubéy papa sànni sànni sànni la si xeer yi boo ma ko tegee bët booy boobu dina wax lan la ma yebe yàlla na dugg Sénégal fekk may dund maa ngi dox nag mais bés boo xamante ne gis naa ku ne ma kii mooy papam dinaa ko def lu bon jaraaf ñu ñëwaat tuuti euh, ci wàllum li nga xam ne mooy politique parce que gis nañ fan yi weesu ay jeunes ay ndaw ñuy yàq li nga xam ne bien public ay ndaw tamit gaañu ci ba ñàkk seen bakkan yow nga nekk jaraaf lan ngay wax ci loolu lan wax ci état lu amati la jaadu mooy nañu o borom ndombi si séeréer si si si nyap, waxuma lebu yi rek ah, xam nga dama wax loolu lii fi xew lépp xon noir la. xon noir. lan mooy xon noir jaraaf. Eh, xam nga dafa am xam-xam alquran am xam-xam bu ñuul nit ñi kii tubaab lu bu ko seytaane ëppee doole mënul comprendre li ngay wax mais defe ngeen ne ñoom bi ñu toogee si di booy bi ñu nekk si àll bi di xeex ñun dañu tok tranquillement rek croiser les bras a ah, déedéet fi mu nek ni da ngay deg lu ne lii may wax ni su ko ngi degge da na nga gis ay xalé sax di saga comme noonu waaye commencé saga, saga saga na sa ndey commencé laa saaga tuur naa si ay camion saga xam nga loolu dañu def ni rek man saga maa fi dàq saaka <laughs> xamul li ma wax euh, lii tax may lay wax loolu état nay oo borom ndombu tànk yi état nay waxtaan ak borom ndombu tànk yi ñoom bu amee renseignement rek xam nañ ne coutume bi wax na ne Ousmane Sonko kero ba muy jóge fële bu fekkente ne am na lu ci xew bii ñu yeewoo gis ne day départ ba mu ba mu tërëfee te gaay aw ko boobu la ñu xam ne jeex na làmba gi tas na ndax dégg nga wax ah, lii xew fii Sénégal si côté am tamit ba ngay waaru mais ñoom ñi nga xamante ne ñoo doon doxal mouvement boobu man pour man du fekkee réew mi kese lañ soxla woon mënoon nañ ko am ci cadre decembre ñu wàccee seen i seen yëpp duñu meeting duñu marche duñu def dara dañ waroon toog ba campagne ñëw xam nga Ablaye Wade système da yore woon day ñëw tàng réew ba mu tàng rek mu dem buñ ko bu ñëwee buñ ko gañee mu delluwaat ba mu jotaat mu ñëw ñoom seen kii pause pose ba mu nga nekkoon décembre duñ ko dégg ni tey mais loolu moo am buñ nëbbutu woon rek ku nekk yaa ngi bëggoon a gis Ousmane Sonko ku nekk yaa ngi bëggoon pour Ousmane Sonko ñëw sa dëkk ku nekk yaa ngi bëggoon surtout xale yi man xale yi si doon dee mooy suma problème parce que xale yi boo fa dëgg nag Sénégal xale yi sumay xarit wax naa sax samay bokk boo ma dee woon seen yoon nekku ci pour soo suñ koy rob rek bu leen ko toppatoo xale yi seen boppa nañ jël jaraaf yóbbu armée li wakaam bu leen neex sax ñu yóbbu ko ba euh, biir géej ñu sànni ko fa bu leen neexee ñu wekk ko ñun suñu yoon nekku si lii ma wóor daal mooy xaritoo naa ak ñoom te xaritoo gi ma nekk ak ñoom yàlla lay jël def seede may nag <clears throat> lii ñu def man pour man ak lii ñu xam ak nun coutume ni dox ak fi mu toll xam nañ ne problème la du ay teef ah, na leer du benn teef maa ko wax mën jara mais bo gisé may wax loolu euh yi am ay nit ci coutume bi yo xamantene ne bu ñu jógee bu nga def dara duñ am doole bi duñ am doole bi sétal ñawar ak nu muy démé en temps de paix ngay xol xam mata tek fenn fi su ko défé ñoñu ba léegi am na xamantene ñoño ne leen jappalé sax bàyyi jaraaf parce que jaraaf mun naa këlfaatu su ko defee la war a def ñu koy def parce que duñu mën a jël lépp tekk si tali bi nii mais lii fi waroon ba tey jii am na yu fi war kenn waxu ko kenn defu ko parce que gars yi dañu sonn état bu yoreem réew Afrique yor ay affaire am ay bagaasam nga ñëw par exemple fu mel ni euh, région yi boo demee dëkk bu ne am na lu fa mag ñu wax man jaraaf ma wax ah. lii xamante ne mooy accident yi fi amoon ku nekk prévaroon na ko waxoon nañ ne nangam gars yi wax nañ ne di suñ mbokki séeréer yi wax nañ suñ mbokki lébu yi wax nañ keneen wax na joolaa yi wax waaw ah, lan moo tax ngoon état bi mënu même sarax sax mënuñu ko fi génne non na leer man damay wax mu leer ñoom seen boppa ñu may dégg xam nañ ma bu baax xam nañ ma parce que lii ma wax ne xam nañ ma dangay waaru mais war a dajeeg jaraaf yi sundoy di ko moytu <clears throat> du ma la waxee ne Dakar fi mu toll nii kenn tuuru ko ndax dégg nga wax ci ma wax que nun man man jaraaf bu dee si coow li xale yi duggoon duggoon day mën naa si def lu ma am pour que mu leer mais Dakar dañ ko doon tuuru di si def yeneen waxuma tuuru bu mag mi vendredi bu asabla guddi euh, jeudi bu jot wala euh, lundi bu jot dañ doon tuuru ba fii ba dakaar arrêté naa ko booba parce que euh, nit su tolloo fenn fii di defar nañ ko bàyyi mu defar yaangi fatlu ku ciowal Khalifa salak Bakar Makisal, ministre bi si affaire place de l'indépendance degati nga ko d'accord dama lay damay dimbali rew mi rek ngeen baal ma parce que amna lo xamantene fuñu wax ko su lolu su fekenteene Dakar gem nañ ma len jox bobu ndakarou mooy dëkk boo xamante ne mag ñëpp ci Sénégal dañu d'accordoon ne su xurfaani àll bi grippe bu ñu yaa ngi wax sànq ne coowal xalifa Sall ak euh, ministre bi tey yow yaa si dox dox ay jéego ba tey coow li fay. te doxuma si maanaam yaa si def say. Euh, déedéet kan la. waaw góor du man xam nga coow li gaañ ñi laay wax laa lay wax. ñooy gaañi non bàyyi rek nu na bëleen xam nga lu tax man du man déedéet ay pexe moo fi jële coow loolu mënoon nañ fa jóge ku nekk mer tey jii boo seetoon xalifa yoonam sa nekkatu loolu parce que day wax ne noonu yàlla dogal la muy ak ñulit keneen euh, ministre ba naka mu tës génn ku baax boko on woon ne non non non lolou du sama problème lolou yalla dogal la. legui léegi lu tax loolu noonu mënul dox ci diggante Macky Sall ak ki nga xam moy Ousmane Sonko. Ousmane Sonko man bok xawmako xamna ko xam naa ne ah, ay nit yu taxaw ak man ba tay ne ma bëgg la mako ko waye nak anduma ci xeex si réew mi parce que suma rôle tam loolu ndax dégg nga wax euh, parce que bu tàngee foog nga seral ko boo ko seralee après ngay fexe leneen waaye ñun li ma la bëgg wax foofu dama la bëgg xamal ne gouvernement nay waxaat ak ñii seq programme bi boo demee euh, Casamance am na lu fa ne soo demee Diourbel am na lu fa ne foofi dugg am na lu fa ne yooya noonu di ay suñu yu maam te xam nga ne Guinée dina dugg si lu ne ginne dina defar lu ne Guinée boo ko faalewulee mu ñàkkal la fayda mu ñàkkal léegi tey xam nga li nga xam ne mooy temps bi léegi mu jeex jaraaf ñu bëggoon xam tey ji sànq sax yaa ngi évoqué li nga xam ne mooy usmaan Sonko bañ ko jàppee ba tey mu nekk ci kaso bi di def grève de la nga nekk jaraafu Dakar tey euh, est-ce que tay jotul tay nga dox ci jéego yo xamne jamm dina ñëwaat ci diggante ñaan ñoom. ngoon dégguloo ma fi ma lay wax su fekkonté né état mo moo bëggoon gisé ak jaraaf yu sundoy moy man yu sundoy bu mo bëggé gis état day metti lék lék de du ma la nëbbatu ñoom xam nañ ne da ngay waru bien que Macky Sall lay faral ba ci sax dégg na benn mouvement ko Ousmane Doy bu yoof xawma fu mu créé loolu xawma nu ñu ko créé mais départ gisoon naa ay affaire gëj naa toog ak moom ëpp na un an barke bii laa dayeek moom Auchan bi ndëppal ka ndëppa yu gaaw indi ko coowal góor jigéen gu mat sëkk xam na ka nekk faralu mala ba gis gis si net bi am na lu bari loo xamante ne ñoom dañ koy fàtte man bëgguma def lu ñaaw waaye nag bëgguma tam ku may dugal ci yenn Ousmane loolu muy wax bii ma ko gisee il m'a dit que ne du man non su benn doomu jigéen moo ko sa def wax naa wax li wax yëpp sa xam naa ne day meew mais il faut que ma wax ak moom il fallait ma wax ak moom xam ne nii la demee ma ne ko kañ laa la gëj a gis ak kañ nga dugal sumay affaire pour wax la ne dañuy euh, ruubee rek jaraaf Youssou Ndoye ko commencé dégg Sénégal mu ne faralu moo Macky président Macky laa faral même génn bi mu génn naan non man je vais vous parce que damay génn bu waxoon ak man barke salaatul fatiha su amee si man confiance du génn du génn maa nuyu maa la ko wax bàyyi pourquoi non mom man mako faral te su génnee ci politique su boba amna droit tax taxawal ne faraltuma kenn waye nak man ni mu defee man d'accord ma ci génn fan pourquoi mu génn parce que ciowli ciow fa mu am armée li kese ngay dem te do fa fekk ciow na dégg nga mus ga dégg ni bu fi ni fekk lolu ba tax ñu mañ ciow xam nga ciow

Euh, temps bi nga xam ne cëraloo nañu ko maa ngi jeex euh, jaraaf lan ngay tàggatoo ak lan ngay dénk ndaw ñi. ndaw ñi samay ndaw la nu dénk leen mooy bu ñu génnati si yooyu parce que ku si gaañu sa yaay am problème su fekkent ni yaay nekku fi bàyyi nekku fi say bokk dañuy am problème te société lii nu yàq si réew mi buñ ko laa def defaraat dina yàgg. parce que tey jii euh, maa ngi doon dégg ñu ne xaw ma euh, xaw ma nan RT xaw ma naka e RT e bi décembre lañ koy inauguré dana am retard maa ngi doon dégg yu baax yi fi président def ba ñu taxaw de xaar loolu pour que lépp normal bu ko xale yàqee seen alal lañ yàq xamuloo est-ce que xam nga ñoom ñoo tollu si ay neex la ay naqari na waaw parce que booy dañ war a dañ war a dañ war a euh, maa ngi dégg sax benn bo ku le train dañ war a noos teg petrole bi ñuy wax si réew mi defe ngeen ne dañu toog rek ne pétrole comme ça rek yàlla may na ko or bi ñuy wax si réew mi jamaa bi ñuy wax si réew mi ak lu ñu mën a wax dama ne xale yi nañu xam ne seen chance la yal nañ ko mur lo lolou lañuy ñaan ñun mag ñi euh, jërëjëf euh, jaraaf euh, ami internet Mader TV li lañ leen indi loon micro Mader seeti won ki nga xamne moy mooy jaraaf Youssou Ndoye plus précisément fi nga xamne moy wakam di leen jox dig dajé ba benen yoon ak benen personne merci beaucoup degal gan sore ay Youssou sale ay ñaan degal ngan sore libu ni mu yaatug yee gannaaw jaraaf noonu la yaatug yee xol deegal ngan soore libu kirug bi mu yësi jendeer lañu taxaw saraxe nag yi duggee ci kafeer jàmm moo tax ngan soore looloo tax jaay su ndooy ñëpp siw fekk seno kii daal damay wax ni mooy jaraafi kafeer mooy ku baax ki mooy ki yéen ki mooy ki bëgg a ki dem na ba Casamance doxi jàmm ci buuru Oussouye kii daal dem na daal ba néegi ndar géej doxi jàmm daal kii daal fekki na baaba maal ba néegi Podor pour doxi jàmm kan mooy jërëjëf si nooy xagaan baa ngi cegees baa ngi xoxo bopp baa ngi yur baa ngi beeñ baa ngi jàmm rek lay dox ndooy